c'était juste pour passer des appels donc mais au fil du temps nous transformé transformer téléphone smartphone ordinateur tablette ils ont fait information mais cependant technologie bi affecte notre nos habitudes ba paré ak suñu santé bi motax nak ba malgré que nit yu bari dépendre nañ ci alors gis nañ ay impact ya nga xamné mo ngi melni ay troubles d'audition manam mhm. soy augmenter ce volume téléphone soy déclou musique après day dem ba yàq ce cellier yi cellier ay hormones ay cellules ya nga xamné la ci bir

C'est mën la jural du texto souvent soy soy ay texto wala Candy Crush wala yeneen jeu bari na fi hmm. yi bi di jouer <laughs> jouer <laughs> donc déclencher le fait que soyez concentré euh, si jeu euh, ça reviendrait à porter 27 kg si ce coup.

ak euh, trouble du sommeil manam mhm. ce sommeil sa nelaw di troublé et tout loolu lumière bi moo koy def lumière bleue bi téléphone bi di lumière LED donc lumière bobu day euh, day atténuer day réduire ce euh, mélatonine mélatonine ben hormone la ba nga xamné mom moy tax nga nelaw mom la wax hormone du sommeil mhm. donc il est préférable mélatonine soit koy <laughs> produire mhm. donc c'est utiliser sa téléphone non avant ngay teud baaxu parce que day wàññi mélatonine bi moy tax ngay am euh, ngay am problème pour nelaw bu baax si laa dëkk hmm, euh, day wàññi mélatonine donc il est préférable que 2 hmm. heures de temps avant ngay nelo nga fay sa téléphone bañ ko utiliser ah tamit xam nga li ngay wax ni gars yi pour échapper à yi mais mais sa santé jar na ko sa santé santé ah. li muy wax uh-huh. sa santé jar lu lépp loolu alors suñu fa jugee loolu suñu dem si microbe ak bactéries hmm. mun na causer aussi ay microbe ak bactéries benn journal bu nekk Wall Street journal ñu naan journal du Wall Street moom moo def benn étude ba nga xam ne dafa dañoo jël téléphone ya nga xam ne ñoo ngi ci biir benn bureau huit téléphone ñu xool ne téléphone euh, ñu ne le portable est un nid microbe maanaam télé portable daal hmm. microbe bu mu fees dell hmm. ñoo ngi fa gis ay microbe ya nga xam ne ay coliforme la ñuy wax yooyu ay microbe ya nga xam ne ci sa intestin yi la ñu nekk ba pare yooyu da jural <laughs> contamination fécale kon avant touche téléphone nit wala bureau set ak ndax nit ñi alors dina jox ay douleur à la téléphone du indi choléra hmm. la ay douleur à la nuque ak ak environ ngi ngi 4,5 kilogramme bopp xam nga kon bopp diis mhm. moo lay wane ne kon da nga war am nooy toogee bu baax da nga xam ne kon sinon soo toogeel bu baax day andi ay euh, problème si sa colonne vertébrale <coughs> wala problème si sa nit bi ba mun na la demal di andi si chirurgie mun na la dem yóbbu la si ay opération chirurgicale ay euh, intervention chirurgicale donc moo tax il faut ngeen taxaw bu baax jafe-jafe boobu mooy ñiy jël seen téléphone yi di sëgg di def nii

Euh, seen bopp ak sen sen oreille ak sen épaule yi mu aligné wu donc ngeen jëlee téléphone bi à 30 degré pour ñu yore téléphone di wuyu banque yooyu yëpp dañ koy téré dañ koy téré yooyu dañ koy téré voilà donc loolu après hein. danaa ñëw pour teud bi du bi loolu si radiation yi la ñu jëm voilà si la ñëw jub la alors l'organisation mondiale de la santé nee nañu radiation émettre ay euh, ay kii ya nga ay qui ya nga c'est cancérigène. mais malgré que euh, organisation mondiale de la santé waxul ne téléphone dina joxe cancer exactement loolu euh, firndeelu guñu ko on naa ko tuddee noonu. mais mën nako yé mën na ko yee dafa am ay buy nelaw mu yee ko voilà hmm. en fait radiation radiation yi nee nañ c'est potentiellement cancérigène loolu la ñu médecin yi gis hmm, hmm, donc am na dix téléphones ya nga xam ne seen radiation yi dafa bëri maanaam seen valeur d'AS DAS euh, am na ya nga xam ne tamit seen valeur dafa wàcceeku donc il est préférable téléphone ya nga xam ne seen radiation yi dafa wàcc maanaam Galaxy 6 Edge Plus sama téléphone ma 0,216 la radiation bi mooy ban woon naka ñu xool Galaxy 6 Edge Plus normalement image yi war na affiché wu faire la publicité xaay bi mi muy gën a xaay muy gën mhm. wàññeeku euh, parce que li nga parce bi nga wax léegi nii mhm. marque bi ku ne xam na ne marque bu xaay la ci ah, jamono jii nii dafa cher mhm. am na bu ko gën a cher te radiation bi dafa haute dafa haute dafa hmm. mais kon am na benn moo lay wan ne am na incohérence téléphone yi gënante nañu prix bi ça dépend pas si loolu parce que am na téléphone moo xam ne moo gën a yomb si fii nii te te radiation bi dafa fort. moo plus a fort moo plus fort donc euh, di dina la moo ngi nii téléphone yaa ngi nii pourtant c'est pas un problème parce que day yeete des gens pour nous xam. pour ñu xam lan la ñu war a mën a jël. Euh, xam nga lu may bañ madame Mbacke euh, soxna non du Mbacke parce que ñoo ngi affichés. affiché. waaw dégg nga madame Mbacke soxna tout à non, iPhone 5 donc iPhone 5 moo ngi iPhone 5 il y a Alcatel One Touch Idol 3 Alcatel One Touch téléphone vous ngeen war éviter parce que seen radiation yi dafa forte donc 10 téléphones Alcatel One Touch Idol 3 Alcatel One Touch Idol 3 4,7 pouces et Honor 7 Apple Apple iPhone 5S Apple iPhone 6 iPhone 6 Plus Sony Xperia Z3 Motorola Motorola Moto G a eu 10 téléphones yoo xam ne seen rayonnement yu de fort. donc c' est à éviter kon sama téléphone bokk ci. waaw alhamdulilah nga xam ne baax na maanaam 6 ah, edge plus ak edge 7 <laughs> edge ak Galaxy Alpha 5 ak euh, Galaxy S6 tamit ak Huawei Huawei Huawei mhm. euh, P waaw ak Wiko Leni Asus Zenfone 2. Arcos Samsung Galaxy S7 aussi ak Samsung Galaxy Prime. yooyu baax na seen radiation tuuti na. Nicolas donc su ma fa tamit pareewu ma dafa am ña nga xam ne dañoo accro si internet. waaw mais loolu mën nañ ko mën nga ma ko may beneen yoon mën nga ma ko may euh, semaine prochaine incha allah. waaw su la ah, neex comme loolu nga bëgg. waaw <laughs> te nee nga waxtu euh, waxtu bi xaj xoj nañu loolu moo tax. ma ah, euh, xal tuuti rek bu ndaw rek. <laughs> Ah, exactement voilà. dafa mel ni ñoom seen nopp yu bon yi lañ ma dénk de ah. bon xam dañuy wax que Euh, li muy def si ay danger bari na trop Nicolas surtout da ngay gis ko xamantene ne di jouer di jouer di jouer ba 2 heures du matin. mu fay lampe yi continuer jouer. te xamul ne lolou da fay yak say beut carré bon xamna naa dina ci ñëwaat wala ngay jouer ba ci kanam doto amati charge nga dal di koy jël brancher ko di wuy téléphone tëdd amna ci ñu bëri ñu mu ray wala xolé ci internet hmm. bi da nga ko ciy gis nga jékki-jékki gis nit mu jékki-jékki nga yewu seen ko mu laq ba xam ndekete charge yi de charge woon tëdd di wuyu moom moo def et aussi les accidents kon nañ baye xel bu baax ci smartphone yi xam nan nañ ci demee modérément en fait du yak il n'avait pas les yeux en fait Nicolas dama koy rajouter pour mu gëna xam mhm. Béatrice Kochner présidente de l'Académie française d'Ophtalmologie, moom nee euh, écran du yak du ko abîmer maanaam mais day provoquer ay fragilité ya nga xam sous-jacente manam day def ay entraîner ay picotement aux yeux ak ay mm. brûlures ak ay maux de tête mais du yàq say bët carrément merci beaucoup koku moo doon Chic Abi mu ñewon ci rubrique high tech ah, donc mbokk yi xarit dégg am di jàmm yi lañ ko don défé ci li nga xamante ne moom mooy rubrique yi donc li nga xamante ne xëj na mën nañ ko jéxal ak Cheikh Babacar Ndiaye mudi euh, relation yi ak Cheikh Mamour ah, li nga xamante ne euh, seen diggante euh, yow Cheikh Mamour est-ce que am